aba mbëggeel na ci nit ñi yàgg ndax réew mi ah mbëggeel dafa am solo abaa bala ngaa xam ne mbëggeel am solo nga am ku la bëgg mm-hmm. ngeen nekk ci biir ah, biram néeg mm-hmm. abaa am na ñoo xam bu ñu wàccee mm-hmm. duñ ba duñ bëgg a dem seen i kër mhm. dañuy toltalaan fu nañ dugg grand place yi waaw góori grand place yi fan yi passé soo waaye moo woon naa ma gaa fi ma ko luy gaa yi <laughs> gaa yi mooy lan gaa loolu la bu bees la xanaa luy loolu gaa yi pour ñëw naata ma ne loolu li fi def ba ma defee la waaw loolu jëm bu fi def la xam naa defati ay gaa gars yi teg ataaya. waaw maam ren kaay ñu naan ataaya. moo abaa loolu fi def la. ay ah. gars fële eh, ay gars fële waa ah, ah, yi kan moo ko fi. loolu <laughs> daa kenn sama sa gis. ay waa ci ñibbi ay min wi mu naa ma gars yaa ma ne ko yi. <laughs> moo na bàyyi di ma woo naa ma gars yaa ngi luy gars yi. même maam nga toog ba ci yàgg woo gars yi dem seeti leen. waaw gën ñaaka gëj naa gëj naa xanaa ñu comprendre ma. waaw ah, bu ma ci dañ may xooj arbitre ma <laughs> buñ ma xoojee bala ñu maa dindi ci pan bi ñu yàgg. waaw waaw dañuy yàgg. dafay liñ ci commentaire rek wala gars yi gars yi moom moom euh, moo jaaxal ñëpp lan mooy gars yi. waaw ah, gars yi waaw maa def gars yi. mais maanaam gars yi dañuy laajte. waaw ah, ba tey man de maa man de maa ngi ci gars yi. waaw maa ngi ci biir gars yi ndax maa gars yi far. gars yi dañuy laajte. est-ce que euh, erreur. waaw weesuwul ñun. bu ñu nee ñun peut-être say collègue la ñuy wax say mbokk ak say xarit. erreur bi ñu def mooy. Mhm. bàyyi la yow. Mhm. nga teel a Ah, li ngeen def ni mooy jàmm li ngeen erreur bi mooy yéex a yow xamee woo erreur yow da ngay jubal erreur lii yàq ah, ah, yéex dugg dara wuuru ci wu kenn demagul ñëw wax la am foofu bu ni ci def nii dëgg la maam la xool yaakaar naa ni comme dañ lay tegal añ ak reer dina ci baax bu ñu tegalee añ ba reer ba noppi oh, euh, tegal la jus bi nga xam ni mooy euh, jus bi gën jus bi mën mooy jus jawda nga xam tabarkàlla indil nañu ci am na jus bi am na ay fruits yu mel ni ay parfum yu mel ni mangue am na ananas am na pomme am na orange am na pêche am na cocktail mhm. am na pour mag ñi membrane waaye am na euh, pour xale yi day sedd guy mhm. neex bay bëgg de dee mhm. cocktail u mhm. xale yi bu ñuy dem école bu ñu añee ba noppi ñun mag ñi wala ñu reer ba noppi wala ñu tàng jër waaw kii moo ci mën ta daf da lay andiwaat abaa lii dafa baax xam nga lii ñàkk kanaan dara da ci wóorul ndax vitamine la boo xamante ne day day am lu bëri lu muy remplacé yow dëgg la lii dafa am solo lii dafa am solo ay ferñeent ah, ci biir baax dara new ci baax na waaw naka ñi baax na ko ñëpp naan naka ñëpp naan ma ko baax na ci xale baax ci mag baax ci xale baax ci baax waaye boisson énergétique euh, bi nga xam ne moom itamit euh, moom la ñu woowee sport vitamine drink Samira Coulibaly kii ah, waaw kii kenn du moom kii moo raw gars yi nee naa la mm-hmm. sport vitamine drink mooy seen boisson boo xamante ni euh, amul daray suukar. Mm-hmm. ba pare yow mi nekk salle de sport wala nga toog sa kër di yëg coono boo xamante ne du jeex mën nga utiliser li nga xamante ne mooy sport bi vitamine bi nga daal di koy naan da gis ni que sa yaram soxlawul sax ngay jëla ci ay vitamine wala ay leneen ak leneen mën nga yem ci boisson bi membrane bu ma bàyyi ma fen ndax guddi gi tamit bu dee coono gi dalaa daf boo paree def ci mm-hmm. liggéey bi rek koy jël rek daal daal di gën a santé sa bopp daal di dafa baax daal loo loo ci wax la nga bàyyi ëpp moom vitamine drink mii eh. boo ko naanee di ah, sa yii lay njëkk a wàcci loolu la ab coono da koy a ah, da da ko fay jëlee eh. moom yaram yu metti ak tànk yoo xam ne day bañ a ah, lee ca man maa la wax nii en tout cas bëggee ah, baax na trop ci ñun ñi nga xamante dañuy yeewu chaque jour di ñëw di wax di animé wala ngay yëngu moo dem sport mbër beeg ñoom ñëpp ci lañ bokk mën ngeen wootee ci li nga xamante mooy 78 euh, ngeen dem fi nga xamante mooy euh, Grand Yoff jàkkaarloo ak pont de l'émergence bi wetu pharmacie Serigne Saliou ngeen daal di am ci boisson bi nee leen abal yi bu ngeen koy utiliser da di gën a kenn du la yab muy góor nag di jigéen déglu leen ma bi loolu mën nañ koo jël kenn du la yab maam daan da am da am puissance ci salle bi ngay dugg poids yi ñu lay jox nga attanuma bi wala ngay dugg ci match de foot ñu lay passe en profondeur doo ko mën a daw xam nga xam nga état ñu passe en profondeur aba son xam na a wax da ngay nege dëgg doo mën a wax saw tur a ah waaw boo sonnee dëgg saw tur doo ko mën a wax maa xam son yàlla maam daan noo tudd <laughs> Oran xam nga li tax boisson bi neex na. waaw ngay parfois da ngay engagé ay match yu métti ay derby. waaw match yu métti maam daan démb match Barça bi match yu mel noonu. waaw Barça li koy football. walaay li koy football waaye démb démb dañu naan doon football. dañoo rëcc waaw dañoo rëcc xam nga Barça. Mm-hmm. sunu dëkkandoo yi ñu leen di yàlla na yàlla defal leen jàmm waaw ñi ñu seetaan am na ñoo xam ne say fans lañ mais dañu bëgg Barça waaw Barça loolu ñu ngi nuyu suñu dëkkandoo yi yàlla na yàlla defal leen jàmm de naa changé nañ entraîneur waaw waaw loolu est-ce que loolu la dañuy ah, ah. de tuuti bu ñu ko joué waaw bu dee ñoo gagné waaw dañuy toog ci ah. Ligue des champions ki ñuy joué wul ah ki ñuy imam bi da <laughs> la ñuy joué imam bi da ñuy Amina Ahmed lan la waay eh, bul ko fàtte. ko fàtte eh, nañu dem xool ko te jëwaat léegi ki ñuy séyoon mooy ko makki. waaye imam imam imam la ñu. waaw waaw ah, père la. imam la jox leen fi woon ñaata. 4 ah, xaw ma la 8 ah, na leen ba ñu doon sax ay eh, seetaan a wàcc. waxtaan ak waa BR ñu wàcc. waaw waaw waaw waaw waaw yàlla yàlla sàmm leen yàlla aar leen comme xale yu ndaw de comme xale yu ndaw ku dóor jox sama